mbokk yi ñaari mbër yaay ngi noonu ci diggi géew bi diggante Tek Choc ak Thiatou Montagne Tek Choc fu mu jëm dafa niin wala lu xew Thiatou Montagne a ngi noonu di tekki lambataake yi Tek Choc daa niin ñoo ngi koy fomp Tek Choc Thiatou Montagne combat spécial caatu montagne ngi noonu ñuy xool moo ngeem moo ngeemul xonk li rangoo fas bu xonk bi teg soog caatu montagne teg soog caatu montagne arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër li nangu ak li bañ consulté na ay siisam wax ak ña sifflé na arbitre bi sifflé na Tek Choc moo Caatu Montagne Tek Choc Caatu Montagne ko sokkatal moom la du xaar Caatu Montagne rek mu dox ci Caatu Montagne Tek Choc moo ñu woon ginnaaw caatu montagne moo jàkkaarloog ñun yor ngembalu xonq li mu ngi ko sëkkatal caatu montagne ngi dox ci kaw Tek Choc caatu montagne door na ko crochet go door ko kubu dal yor na mu fal ko dëgg na ko mboot ñu seedee jël bi caatu montagne ndànk takk na ko takk na ko taf ko sukar bi ko daan ko caatu bi ko doole Caatu Montagne Caatu Montagne daan na teg choc. Caatu Montagne daan na teg choc da koo imposé. Caatu Montagne ngi noonu dem na yëkkati ko. dara da koo imposé. kaay nii eh. caada ngi jooy. caada ngi jooy. kaay nii yooyu. gannaaw yaa tax ma mooy góor nga barki alxuraanul gannaaw yaa tax ma sori la. da ngaa bàyyi sa liggéey bàyyi sa rëb. kaay dem ci presse bi bàyyi baax na kaay dem ci presse bi kaay kaay dem ci presse bi ah waxal ak gars yi tuuti rek waxal ak gars yi kara kara bàyyi ko wax ak gars yi tuuti rek. waaw waxoon naa li ma may waaye 2000 ba ak sëñ Tuubaa Mbàkke. ah waaw Ousseynou maa ngi sant yàlla rek. damay sant yàlla ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu te fekk sama njëriñ bak sëñ Tuubaa Mbàkke Ousseyn fu ma jëm daa jeexagul bilaay fu ma daa jeexagul bak sëñ Tuubaa fu ma jëm jeexagul nga dox ci kawam ba nga jeexal lamb waaw teg sox moom waxoon naa nga ma am ko ma ba ma bàyyi bëre barke alxuraan karim billaahi wallaahi wa taala sama sama sama taxawal ma gis mu taxaw ni muy jaaxle ma ne ko la ngay jaaxle barke jaaxal ba da ngaa ne mën nga gëm ma ak suñ Tuubaa Mbàkke ñan ñoo ci des